salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk mbégte lay doon bu ñuy jannoo ak yéen suñuy mbokku internet 24 dañoo ñëw fii ci daral daal di lijjanti li nga xamante ne nii moo di mi am ci réew mi ba mu duggee ci réew gis nañ ne activité yu bëri dañoo daal di taxaw ci noonu la ñu daal di ñëw daal di jàkkaarloog suñu papa ji ñu nar a moom dañ koy daal di nuyu bàyyi ko mu daal di nuyoo ko mbokku internet yi papa nuyu naa waaw soxna si maa ngi lay fay di sant ci li nga fi ñëw pour euh, laaj ñu xew-xewu réew mi ba ñu mën ci wax ñu it suñu xalaat. papa ma daal lay bàyyi rek nga daal di présenté wu ñi nga xamante ni xamaguñ la. waaw man de si Sylla lañ may wax fii laa nekkoon hôpital Ndamatou comme major pendant douze ans ba retraité fi ah tabax fi sama kër nekk fi ma ak sama njaboot ñaan yàlla dee fi ñu suul ma fi ndax sëñ Tuubaa rek laa gëm moo tax ma ñibbisi. ni ma ko waxee léegi ci ci commencement bi nee la mbas mi ba mu duggee ci réew mi ba léegi activité yu bëri nemeeku nañ ne dafa taxaw yéen ngeen nekk fii ci dara gi ñu bëggoon a xam naka ngeen ko dundee. waaw dund gu metti nag ndax xam nga moom euh, mbas mi dugg ci àdduna beeg dafay loo xam ne lii ñëpp a ko ragal ndax jàngaro joo xam ne ci doo xam nu mu lay duggee te bu la duggee boo yéexee mu faat la kooku dafay jaaxal doomu aadama surtout que ni ñuy waxee noonu lay duggee nit ñi loolu nag kenn xamul kooku nag moom yàlla ak euh, ndimbalal sëñ Tuubaa rek ñu ciy génne. ak moytu ak déggit ndigalu docteur yi loolu daal ci leen ni ko ñëpp dégg lañ ko déggee waaye teewul ak ku nekk yaa ngi sàmm di déglu bu baax li docteur yi wax nga ci jéem a dox sa kéemtalaayal kattan di mu ñuy moytu di ba nga xam ni daal ñu ngi ñu ngi góorgóorlu daal ñaan yàlla daal bu mu ñu laal bu mu ñu daal waaye nag métti na lool métti na lool ndax wax dëgg yàlla ay nit ñoo xam ni ay ay néew doole lañu amuñu ay solde Touba amul usine amul amul amul li place su liggéeykaay moom Touba moom informel rek moo fi dox ak commerce yooyu jënd ak njaay jënd ak njaay nag fu mu yam foog nit ñi di fa daje te lii day tere nit ñu daje day tere nit ñu jege ñoo ndax daa gaaw a wàllaate te doo xam ko ko am ak ki ko amul xam nga loolu moom yàlla góorgóor rek moo la ciy dimbali waaye sonn nañ lool de. ndax gi jamono ji am na lu leen di xontee. waa jur gi fi mu ne loolu nag ñun moo ñu gën a rey. man mii gis nga ma maa ngi nii maa ngi toog nii xont naa sama jur fële ba ñëw toog fii di feexlu parce que gars yi booleeguñ ci de xëy na nag ñu ngi lancé un appel président na xam ni mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk buñ joxee nit ñi daal nga xam ne nit ay prioritaire na xalaat ni jur gi it nit ñee leen di dundal ku amul nag bañ lay dundal boo yéexee ki mu amee di ko dundal dana sonn ndax ñu ngi nii boo xoolee ñu bari fi mu ne pour ñu am luñ jëndee ngooñ dafay jafe ngooñ a ngi jar trois mille cinq cent francs mboob léeg la nga jënd sarsu mboob ay huit mille dix mille ci ko xam ne ñu ngi naan ñu ngi lay dimbale pour jox la ceeb boo dunde koo xam nga loolu problème la yow am waamul loo dunde bañ lay dimbale boo bëggee di dundal ñeneen te fii koo ci am na ñetti nag ñeenti nag am na fukki xar xam ne ndeysaan bu xëyee fi lay xëy lu mu am di ci kas-kas yi léeg-léeg mu wàññi ci xar yi jaay pour mën a dundal pexe mu ne daal ñu ngi ci. papa ndax sa ndax sa dimbal ci ci ci ceeb beeg yooyu jot ci non ceeb bi jotuñ ci ceeb bi daa ceeb bi pareegul ceeb bi soxna si ceeb bi dana indi coow lu bari man am naa amoon am naaj ci am naa lu ma naqari parce que nun Sénégal président daal man moom laay jàppale sama sama lépp la waaye ñoom dañu def ne rek borom xam-xam yi yem ak borom karawaat toog ci télé yi gis nga nit nit bu ko xeeb nit ku am na lu muy xalaat man nii def nii dem jënd ceeb di ko joxe président man bu ma laajoon du def noonu. dafay subventionné ceeb bi ba pare jox nit ñi xaalis xam nga tey soo ne see su fekkee dama laa may ceeb ak diw rek ak ak ak saabu ak lii ni la dunde ko ku la wax ni loolu rek laa mën a lekk il faut mu leen lu ma ci teg di di jëndaat te aw ma ba nga ba nga ba nga dimba dimbali bul ma dimbale lekk gi te it moom moo gën noppale coowal ceeb bi dégg nga ni mel ci réew mi président su subventionné woon ceeb bi delloo ko delloo ko nag léegi les commerçants yi ci localité yi ñu koy jaay buñ ko jaayee sept mille francs sept mille cinq cent la leen koy defare mu yow nag borom kër bu mu jox la soixante quatre mille wala soixante dix mille boo ñëwee nga jën au jour le jour parce que boo amee loo dundee rek te amoo loo yore comme li mu la wax jur gi lu muy jëriñ il faut nit ki te looloo doon gën a noppal nit ñi bourse familiale yaa ngi fi ak ak recensement yaa ngi fi day jël nit ñi joxe seen numéro carte d'identité numéro seen numéro téléphone yëpp ku la ñu bari la wala ñu wala ñu wala ñu orange moo ne la moo yore sa xaalis nag léegi parce que actuellement nii tey ceeb bi buñ ko distribué waaw le commerçant ki ne newoon ci village bi daan jënd ay tonnes ceeb di jaay kooku léegi yow buñ subventionné ñëpp fii deux mois du jaay a ah kooku lor nañ ko kon dañuy defar ba ñi ñi néew doole mais ñi ñi yaakaar ni am nañ doole amuñu doole commerçant yi yor gën magasin dañuy leb rek da ngay dem ci banque yi jël xaalis ko quota ceeb da am di ko jaay ceebu saako bu ne téeméer dërëm nga ci am kon kenn amul dara mais bu ñu defoon noonu tey subventionné ceeb bi commerçant yi ñëw kon duñ fay transport commerçant bu ne dem port li nga jël boo bëggee cent tonnes la jaay la ko à à sept mille francs ou six mille cinq cent ñu fay li ci des moom bu ñëwee mu jaay sept mille commerçant bi am ci téeméer bu mu dundee mooy parce que nit la commerçant doon am na rek bokkoo ci ci ñi ngay dimbali président président Sénégal yi. même tamit euh, kii facture courant yi tamit wax na ci tamit. facture yi ni mu dañ noo góondi rek. factures yi dañuy wax dañuy wax ni dégg nga am tranche bu mujj bi ñoom la ñuy dimbale mais ana koy lakk vingt mille francs courant courant bi mess la dañ doon nax boobu que il faut que weer yëpp mat vingt cinq mille ñu door laa wàññil kooku loolu nag vingt cinq mille kooku kenn mënu ko courant lu mu néew néew bu ñaari weer yi ñëwee dana mat trente trente cinq mille kon doot ñu daal di la éliminer il faut que ngay lakk kon huit mille francs par par mois ñu mën nga mën caa bokk dafay jafe ah courant de bi mes la te bimestre bi la ñuy calculer bu fekkee sa bimestre mooy vingt cinq mille waaw ñu ñu ñu dugal la ci bimestre vingt cinq nag daa mel ni yow doo yor frigidaire sax booy naa ne glace. papa gis nañ ne tamit nee nga sànq jur gi amuñu lu leen jox kon te ñu ngi waajal li nga xamante ne ni moo di tabaski est que du nekk jafe-jafe pour xar daal di mën a am ren. jafe-jafe la boo ko gëstoo nii boo ko filmé ay nding rek nit ñi daw nañ gaaw ñi amul doole jënd ngooñ daw nañ mboobe ci àll bi di jënd ay charge su bopp six mille sept mille huit mille gis nga nding boole boo boo ngeen ko filmé man am naa nding boo xam ne dama ko préserver pour samay nag parce ma jënd ngooñ ko defee nag ngay xonte mbopp di di a sauver jur gi ba ba tabaski jub xëy na nga renforcer mën a mën a jaay mais man nag heureusement man defuma vocation pour jaay man dama dama tam dama bëgg xar ak nag rek man maa ngi ay xar ak ay nag mais du ma jaay kat du ma jënd mais nag am naa fii xarit dama ñëw je passe le temps c'est que yar daal daf maa neex man waaw ah, mais man duma juloo duma ma du ma dama yafal léeg bu baax ma lekk man dama leen di lekk man waaw ah, man damay damay xar di dundee euh, comme que daan corona la ñu wax bu ñu waxee daan corona xel yëpp dana dem ci hygiène bi maanaam set gi dañ ciy daal di ñëw bu baax a baax ak rassemblement yi nga xamante dañ koo tere ngir mën a xeex jàngoro jooju ndax yéen a ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax fii ci dara. ci bàyyi xel gis nga tey suba laa ci ay man leen xamoo euh, euh, mbas mi dugg ci àdduna bi. man maa ngi doon proposé ni tey bu ñu bu ñu imposé woon ñëpp sol masque pendant 15 jours période d'incubation bu day jeex jàngoro ji mën naa réer mais nit ñi ñoo déggati parce que bu ñu la nee protéger sa bopp lii ñëw yow man mi lay man mi lay faj du ko sax gis kooku war nga maa gëm waaye kenn gëmul kenn parce que nit ñi ku sonn rek ah, Sénégal nag moom démocratie bi ah mën nañ caa jëm waaye total it est-ce que dana arrangé nit ñi soo totalee man mi yor de nga am. ñaar fukki xar yor ay nag war a di xëy di leen xont est-ce que di ma bàyyi kon ma dem xonti kon man boo ma confiné boo ñu ñu confiné nit ñi xëy na nit ñi nga xam ne amuñu yaruñu defuñ dara dañu daan xëy di liggéey mais ki nga xam ne dafa yor jur boobu dañ kooku dañ ko sóoraale ñooñu ñu leen di confiné sinon ñu rey leen boo confiné daral kenn génnul ku dund la xar yeeg nag yi yooyu aussi nañ éclat nañ nañ nañ seet équation boobu xëy na ñu defal ñu am place ak i jur ñu defal leen dérogation mooy li ma wax rek. confinement bi dafa dafa am problème gis nga yàlla daal moo ñu suturaal bi nga xamee ni ñun ah, jàngoro bi mën nañ ko faj muy wér mais bu doon meloon ni américain yi di dee kon musiba am comme que nag ñu ngi faj muy wér nañ ko ne di redresser ni ñi ñenn ñi bañ loolu il faut mu am ñëpp duñu aw ci yoon mënuñu ko Sénégal Sénégal koo fi gis nga lefi xew ñii ngi jaar fii ci àll bi dem Dakar ñii di ay la Touba yi daw parce que nit ñi dañuy dund mais heureusement que bi ñu mën a gérer les maladies di ko moo tax maa ngi sant docteur yi bu baax a baax a baax maanaam docteur bu retraité la xam naa li ci ne na lool te président na xalaat docteur yi ndimbal yi ak ak ak motivation yi nañ ko def docteur parce que liy law te xamuñ kañ lay jeex docteur yi dañuy sonn docteur yi duñu mag yi de le personnel subalterne la nga xam ne ñii c'est des aides ñii c'est des infirmiers ñu nga ci sauver des malades la pendant presque deux mois du duñ dem seen kër te amuñu xaalis seen solde baaxul ñooñu la ñu war a gën a motiver ñu gën a sawar ci paj mi parce que faj mi du fi jógee du fi jógee kii faj bu fekkee ne amul motivation am day mujj xoox moom it kooku nag boo ko dee motiver au moins yàlla dimbali ñu ku feebar ñu faj nga wér. ak mën nañoo jàpp prix xar yi fi mu nekk nii ñaata lay jar. a ah, xar daa yomb ba dee dañoo confiné nit ñi jaayatuñu dara li amul marché yi amul da ngay soo xam ne que day xar mu daan jaree cent cinquante mille dañoo jaay ko cent mille franc wala soixante quinze mille parce que day dund moom it amul lu mu lekk moo tax affaire bi baaxul dara ci xar yi. julli boo demoon bu ngeen doxantu woon fee gars yi dañuy taxaw ba deux heures ñibbi kenn du jaay dara parce que ñiy jënd amatuñu kon yaa ngi xalaat foo jëm bu dañ lay confiné dootoo jënd da ngay denc pour mën ci caa dund. ah Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké dafa joxe deux cent millions ni joxe naa deux cent millions pour jàppale leen jàppale góonaa bi dama bëggoon nag képp koo xam ne kii nga mën nga ci dara nga jàpp ci Serigne Mountakha sas nañu bu yàgg ñi ñuy nelaw rek. parce que Touba dafa dafa dafa dafa nekk dafa nekk dëkk boo xam ne bii dafa particulier bañ nañ ko ba ñun ñun spécial la ñu am kon ñun war nañu toog di dajaloo wax naa ko ci rajo yu bari nee na leen ñun bu fekkente ni ñi fi sëñ Touba dimbale mën nañ dajaloo kon nag ni ñun confinement beeg yëpp duñu fekk am nañu ñu nekk Touba ñoo xam ne bu buñ dajaloo topp ci ginnaaw xalifa bi ñu wut benn kees def ko fii ci jumaa ji képp koo xam ne gi am nga am nga doole am nga nga fay teg bu ñu tegee weer wala ñu seet ñu néew doole ñu seetal leen ko kon dëkk bi dina naat na neex ñu am jàmm ñun ñu sommes spécial Touba daa war a spécial dans le pays ñun en dehors même du gouvernement ñun mën nañ fexe ba dinañ bindal suñ bopp ba nga xam gouvernement bi tuuti la ñuy jàppale rek ñu dem suñu yoon defuñu ko fii nit ñi léegi damay denc samay milliards denc samay millions ah di ànd ak nit ñi di dee deel du ma dimbale kenn. est-ce que ñoom dimbal bi waruñu ko woon a njëkkee ak Touba ca kanam beeg yu mel noonu. mais ça fait ça fait un an maa ngi wax li boo ngeen vérifié woon rajo yëpp loolu laay wax fi nit ñi fii man maa ngi ñaan man man naa bëggoon sax Cheikh Bass mu jéem a gis sëriñ bi na sëriñ bi joxe ndigal bu joxee ndigal ñu wut benn benn place fii ci jumaa ji wala ki def benn commission chaque mois ñu wër ñi nga xam ne am nañu une xamante nañu da nga fekk ne docteur Kaay joxeel diw kaay joxel mais sëñ Tuubaa moo ñu fi indi jaamu ko lañ soxla mais nañ nañ dimbali ñi nga xam ne ñi amuñu dara ñoom ñu mën a jaamu ñoom it mais fekkee ne ñi dëkk fi dañuy pauvre sëñ Tuubaa ñaanul yàlla indi fi pauvre de nit ñey pauvre pauvre rek bu ñu ko defoon noonu nag nit ñi dañ mën dimbalante mais duñu ko def bu ko defee koy da denc ba ba mu jeex na nga naan j'ai donné di naa ñuy commencé di joxee ceeb loolu ba ñun ba ñu débarré la ñu waroon jox la mairie la mu ngi génne ay mooy gën a escanté nit ñi parce que nit ñi daañu fa daje jaxasoo ba am mu ñu yokk fa ay ay ay ay ay ay ay ay feebarkat te loolu mënoon na ko éviter. kon Touba tey jii bu ñu doon manquement yi nga xamante ne am na kon lan lan mooy doon sa xalaat. manquement yi daal man li ma njëkk xalaat mooy waa Touba ñoom mën nañ yor seen bopp man xam naa ko man parce que man ba muy ñëw fi yoruma dara a as cagaras infirmier la man def naa 34 ans de service sama compte 300000 la ca newoon. waaye bi ma ñëwee fii sant naa yàlla sant naa sëñ Tuba tabax naa fi sama kër am naa fi sama alal maa ngi sant yàlla kon nag gënuma kenn li ma sëñ Tuba defal bu ma baaxee bu ma gëmee sëriñ Tuba dama ci war di dindi di teg ñu seet ñu mel ni man bañ fi ñëw ñu jàppale leen parce que taaliba sëñ Tuba war na bu fa duggee rek la ko taxoon gàddaay ndeyam ak bàyyam mu fekk ko fi parce que ngeen day ñëw fii di pauvre mais c'est contradictoire te réew mi yëpp daf ne Tuba fi la lépp ne gis nga benn carré bu ko Touba amee rek mooy mooy polariser lépp le cas de Touba rek ngay dégg le cas le cas un carré qui fait kon ñun ñu fi ne nañ organiser wu xam ni yàlla may na nu ak Sëñ Touba loo xam ne lii dafa bëgg ku fi ne rek yi taalibeem rek lu mu néew néew lu mu néew néew nga am loo yor di ci dund nga xam ne boo boo jógee di nga jàppale sa borom taalibe mais mën di lekk di naan mais gars yi ngay waaru ah gis na tamit euh, Touba ca kanam ñoom da ginnaaw bi ndox manqué woon jamono ji ci Touba ñoom ñoo jëndoon forage yi nga xamante ne ñoom ñoo ko defar ba Touba mën a am ndox te yaakaar naa ne ku ne daan corona nee nañ set ndax nee nañ ñuy raxas suñu loxo bam set est-ce amul ndox di nga a raxas loxo bam set ah loolu de mooy problème bi Touba ca kanam moom ñu jara félicité lañu loolu gis nga daanaka li ma doon wax Touba ca kanam mu koy def parce que il faut nit ñi ñuy génn ci di ko delloo ci nit ñi mais bu ne dara du génn kooku du baax ñoom initiative bi ñu jël man même du ma fa membre actif mais bi ma diggee tubaa tubaa ci kanam damaa ñëw jënd carnet cinquante mil cotiser un an ne man membre laa ca waaye nag comme que ñoom tam xëy na dañ maa laf rek ma toog parce que man bu ma dee bu ma dee docteur ñoom ñu am volet vole social di tabaxi di tabaxi ay ay ay ay ay poste de santé mais màggatum retraité mu del ni man am expérience def douze ans de majorat ici xam ce que c'est que la santé mais bu ma ñëwee daw ci ñoom jox leen sama xaalis cotisé dugg mais xam duñ ma woo sax wax naa leen ko ren invité nañ li ma ma leen du ma ñëw parce que man du ngeen ma invité pour ma leen di jox xaalis je veux être actif ak génn sama expérience bu ngeen tabaxee dispensaire man mun naa leen former ay matron wala ay aide ak yi nekk ci biir man du ma liggéey sax ndax maa ngi sant yàlla ñaanatuma yàlla sax di dem ci ay ñu may fay yàlla dimbal leen ma ak sëñ Tuubaa mais ñoom dafa luñ loolu aussi bu amee un un un boo xam ne amal na la njëriñ exploité ko ndax man du ma leen laaj oto du ma leen laaj essence du laaj xaalis léeg-léeg sax mën naa ay def mais nag dama cay bokk man du ma lang de ku ma langaloo rek ma bañ ma toog jàpp sama ñaama. ñu ngi lay jaajëfal. ok maa ngi leen di gërëm bu baax ndax li ngeen di baax di wër nit ñi di laaj seen xalaat moo baax parce que ñu it ñu ci réew mi lañ bokk te maa ngi leen di ñaan aussi rek yii ngeen di génne na jàll ba ca kaw. nañuy invité Dakar waaye ñu toog ci plateau yi di wax ñu defee ni ñoom rek ñoo xam nun métti nañu lool man métti na ma lool man daa sur ay débat yoo xam ni mais ñi ñuy wax ni xamuñu ci dara ci la ñuy wax parce que vivre ñu réalité yi ils sont en cravate di lekk seen i ganaar buñ jógee ñëw toog ci yi di wax mais ñun ñuy max su xoolal ñi nga xam ni loolu la ñuy lekk ay beñe ak ay loolu la ñuy ñoo ñoo xam la la vraie réalité du pays mais lu tax ñu ñuy waxal yéen ñii nañ leen may ngeen di teg seen yii ñu xam ni ña ca àll ba it nit lañ ñu ngi wax maa ngi leen di gërëm nag di leen sant ah. merci beaucoup.